asalaamaaleykum Sénégal Sénégal yi fu ngeen toll ci àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziar fekk leen fa ngeen nekk kenn ku ne jox la sa wàccuwaay di la respecté waaw di la jox sa yéeguwaay gars yi dañ naan wàccuwaay mais man yéeguwaay laa leen di jox di nuyu waa Genève nag ñi nga xam ne si di sa jiital ki nga xam ne si muy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou voilà gorso si nga xam ne si vraiment ñëw na organiser lu rëy loo xam ne incha allah suba la war a xew fële ca Genève dégg nga maam Europe yëpp war fa daje Asie cinq continents yi fu nekk nit jóge fa ñëw daje fa pour sargal son excellence le président Macky Sall nga xam ne mille 2010 la fa mujjoon 2010 balaa muy yéeg ca nguur ga hmm, jaar na foofu waa Genève recevoir ko ba tey mu nekk. ñu amoon espoir amoon yaakaar ci moom yaakaar jooju tey ji def naa ne bis bu ñu dajee Genève ñépp ah le 6 mai bii incha allah di suba bu ci yàlla àndee defe naa ne lépp dina leer voilà danañ gis différence bu ngand ndax booba yoragul réew yaakaar lañu amoon ci moom booba réalisation yépp amul woon Sénégal waaye tey ji defe naa ne ah ña ko faloon gëmoon ko ci Genève gëmoon ko ci Europe bi na ci diaspora bi fépp fu ñu ne ci diaspora bi defe naa ne tey ah ëllëg li nga xam ne Abdoulaye Ndiaye moo ko gëmoon ah ca ak ñoom ah, Malick Kane ànd ci ñoom Mami ñoom Fallou njaay gars yi yëpp ak ñi nga xam ne ñoo ko souteniroon ci ci Europe bi yëpp ah war a daje fële defe naa ne dañ xam ne son excellence rusloowu leen. lam fi wut si woon deux mille dix mhm. defe naa deux mille vingt trois bi bu ñu fa tasee bu ñu fa tasee ah defe naa dañ xam ne ah delloo nañ buum ca mboy mboy ga defe naa noonu lañ koy waxee de bu ma jumul waaw kay xam ne président Macky Sall rusloowu leen looloo tax ñu xam ne réew mi duñ ko jël di ko bàyyee ah, ay sàmba booy yu tekkiwul dara yoo xam amuñu benn expérience politique xamuñu dara surtout nag année bi nga xam ne si suñ pétrole bi mu bëgg a ñëw deux mille vingt quatre ñu war ko exploiter ki nga xam ne moo yor relation internationale yi nga xam ne si taxaw nañ signature yi et tout plateforme yi fa taxaw yëpp pour ñu mën a exploiter suñ pétrole bee ak suñ gaz be dafa naa ne Macky Sall même bu ne woon man fii laay yam deux mille dix neuf sénégalais yi ñoo ko dul may diaspora bi aussi daañ def tout ba. son excellence tok pas parce que mënta liguey ba ag fi ñu diko ko au moins dromi at dañ ko ko joxat hmm? mu tegat ñu ci yoonu emergence ba mu doon wax won ñu ko ñu gis ko pont yak autoroute yak euh, lepp nim koy waxe def na ne gis jant bi man 2017 la ñu waxon opération jant bi la créé won ne la dama lay won jahran li son excellence def bo bëggee na nga gëm ne gisoko Maki waxat noko ko bu yàggul ok bu la nexe autorité yi ngay jaar ci yoonu suuf ya ne do fa jaar ndax iñan wala soxar ok nga bañ gëm di bañ gis li nga xam ci si son excellence def na donc xol len li ta bala ma ci paré ah li ma leen bëgg tégal instant bi mooy ah, fen kat be nga xamne mo waron nek alternative ko xamne amul ben experience, impôt domaine la joggé ci digënté bi ay Sweet Beauté ay sosal ay nit quatre vingt quatorze milliards yi Mamour Diallo ay Mame Mbaye Niang Prodac euh, jàpp na ko ay dossier yor naa kii ku ne mu sosal la ku ne mu fenal la yollee ko waaye ay jabaram def yu n'importe quoi dem Sweet Beauté tey ji procès bi ñu ngi bëgg ñëw voilà heureusement à travers Adji Sarr à travers fen yeemu fenal Mame Mbaye Niang ñu xam ne kan lañ doon ba def erreur pour jox ko suñu réew mee muy Sénégal donc loolu pour ñu invité ko ah jant bi dafa naa ne gis ngeen ko réseaux sociaux bii ñu nekk gis ngeen niñ fi demee woon ñoom xamuñu lu dul saaga wax lu ñaaw respecté tuñ nday respecté ñu pay respecté tuñ klifa diine mu commencé ko usman leader bobu di Ousmane Sonko ku tekkiwul dara kooku la bëgg na gënaaw procès bi ma ñëw ah, di len wax ne Suisse paré nañ pour tek son excellence le 13 Dan Paris la dañ ko def fu ne ci aduna bi pour won len ne ñom nee nañ Macky Sall kenn bëggatu ko dañ la woon Macky Sall mom la sénégalais yi bëgg askan bi ngeen di wax wax len sen mbolo su tuuti soos ngeen woy sen bop askan bu ngeen di di bu len wax askan wi parce que ñun ñu ci ña ngeen wara gis ci Genève ñu ci ñi ngeen di gis ci Paris ñu ci Sénégal ge la majorité silencieuse ñu ci sagaram nit yo xamne ne heures de temps waji def nako barki dem ngeen koy dégg yeen ñep waxu fa dara lo xamne ci Sénégal la ludul ay mbiri bopam dañ ma bëgg faagagal dañ ma bëgg li dañ ma bëgg la melne Macky Sall ko yew bu mu deugër yóbbu ko ci bote yi ko ci kaw Adji sar bañ jël maniwoom ah di ko conserver mbubbam meemu solo neewon na yobbu nako ci laboratoire nim ko yobbo fofu xana kay war nga mëna joxe sa benn karaw ñu dem ñu def sa test ADN gannaaw ay test la ay laboratoire lu defuko defu ay mbiram voilà social mbay nga ñu tek kep muy senegale comme moom yor njabootam yor jabar ay doom nday baay ñëpp di dund nga sosal ko vingt neuf milliards devant le monde entier ñu lay dégg nga ñëw tey ji ñu lay woo nga naan ñëw leen ngeen dee gat sa gat sa ay yéene ko ko laal boo ko laalee boo ko laalee ñu statu la laa la wax daañ la laal yow voilà waaw sa mbubb yooyu ñu def euh, lacrymogène ya ña nga nekkaloon ci oto ba kenn amu ci feebar kenn biiram daw ci yow rek la si biir daw mu ñëw dellusi demal nga leeral ko dem defal sa bopp yomb na sama mbubb ma sol bu ma neexoon sotti ci waaye substance bu ma neex yóbbu ko ci laboratoire poson ba gën a bon ci àdduna ma sotti ko ci dem yóbbul ko sama bopp waaye vicier nekk foon Euh, sele wuñ ko dara amu fa Ousmane Sonko da ngay yàpp sénégalais yi yéen daf leen a yàpp quoi ñëw naan leen dem naa ci laboratoire ba nañ dem mbubb ma ma nga fa yaa yóbbu sa mbubb loolu neex sotti woon nga ko ci diggante bi kan moo koy seede loolu ñeme ko yóbbu tribunal bu dee lii nga nar a yóbbu ci aji sarme bee ngeen xam ne waa ji dana xaru voilà daan ay gambi dem naa fee bëgg ñu jàpp ko ci ay dafa dem gambi rëcc duñ la jàpp fañ la war a jàpp daañu la fa yóbbu te kenn du ci mën dara ay sagaru imaam ak xaw ma oustaz yu tekkiwul dara yi dégg naa ci tey benn boo xam mi ngi taxaw naan ku ko laal dañ ko bàyyi dana bokk wala réew mi dana takk buñ demee ba ay oustaz xaw ma lan sekk xaw ma xaw ma lan sekk la ah oustaz ñoo xam ne jàmm lañu war a indi mu naan bu Ousmane bokkul ah dañuy réew mi dana tàkk mel na bàyyi Ousmane boobu moo ko moom wala bàyyi oustaz boobu moo ko moom ay imaam ak ay oustaz yu nàkk féq yoo xam ne ay sagarul yu tekkiwul dara hmm? ay samba yu mel ne moom comme ni muy wooyee nit ñi ah moom mooy samba bi ak oustazam yooyu di ko dependre fii ñëw di taxaw di tànqal nit ñi guddeeg bëccëg gars yi rendez bi xam nga fan la Genève la suba la 6. mais incha allahu rabbi waaw ñoom kura ña nga fa kura laa waroon defal affaire bi léegi ma nga fa xam naa dafa sonn instant bi mais bu subaa incha allah da xam lépp dëgg la daañ ko yëngal gisam mu taxaw di nuyu nag ñi ko organiser ki nga xam mooy ndeyu mbill ba muy Abdoulaye Njaay Ngalgu ñu ngi koy nuyu vraiment gis liggéeyam gis na nim sonné fan yi gis na ñam tek ci Suisse ni sonné fan yi ñom mami ah. ñoom euh, fallu Ndiaye hein ah. ñom Kane ak gaay yépp ñi nga xam ñi àndal italie gi ñu war fi jóge ñoom yaya gaay war fi jóge ay fat du pont ñépp ñuy jóge ay paris ñi nga war a jóge ay allemagne fu ñu war fa daje da ngeen xam ne lépp dëgg la da ngeen xam ne Macky Sall ah moo fa nekk te moom lañ soxla diaspora bi gis nga réseau bi ni ngeen ko téye woon ñu ko seen loxo daañu jëlaat diaspora bi ne ko teg ci loxo son excellence mu ñëw toog du ngeen mën dara seen njaalookat bi ah kenn yeewu ko ba muy dem boté hmm? gen nan ay docteur man je permet pas à personne dafa am ñu wara laal sama yaram waye aji sar bokku ci ay ñom denk bobu <laughs> lan eh, nday xadi njaay ñoo eh, ñoy dem ñoy sa ñoo fajj faj hmm? ban president lañ wara soxla ci aduna bo xamne si dafa febar mom mi ngi deedeelu ko ci ci ndayam bam juddo ñu nan ko grâce yew la ko doon diw bitel ba di jar xawma pot ba 3000 francs batay yow bo amul wér gu yaram demal nga wuti benen liggéey président dañ ko soxla mu am wér gu voilà président bo xamné si si ah, bu bis bu ne ma nga feebar ma nga ci hôpital yi tëdd luñ koy doy ci Sénégal hmm? gannaaw loolu bëgg def lay baxna devant l'opinion internationale nag ah, ñu ci ca ah, technicité sax mënu ko wax à la technicité teg bébé bi ñu naan verre te ma ngay liir di liir ay point mais kii moo ñàkk jom te naan énaam la génne te naan Mame Mbaye Niang déggul français yaa torox yaa ñàkk jom Ousmane Sonko yaag Mimi Touré ma lay jàppale tey nii yi tamit ku ñàkk jom la soxna sii voilà bërki démb yaa même pas six mois fii la toog naan ko dossier Sweet Beauté ñun yoruñu ko tey jii ma nga jëlaat dossier Sweet Beauté ba naan da koy jàllawaat Macky Sall di ko teg fu ne Mimi ya nyak ñàkk jom ya waa ji du ngeen dara yo dee yow ak bugaan la yaakaar jëmu leen fenn rendez-vous bu gaay Suisse la suba incha rabbi lépp dina leer xool leen nag fen yim mu doon fen yep ma tegal len ko fi ngeen gis ko kan moy Sonko yàgg naa leen ci defal ay vidéo tey nag bii laa leen di refresh sen mind mu del soit ngeen xam kan moy sagaru nit bi sàmba booy bii naan dafa bëgg jël senegal à la place de son excellence Maki, ca kaw ca kanam opération jant bi hall xool gis-gis ku bëggul gis sa problème la take a look rendez-vous bi suba la peace and love di nuyu waa Suisse ak ku fa a ñëw insha allah jaa ngeen jëf xool leen li, mu jeex xaadim ngay teewee la boo ci bind woon na ko def yar ak teggin nak. quantité hmm? qualité gënal wax am fin Jangan ngeen jëf tv la fay ñewal di ngeen ko gis khadim ge tv ak ndanan tv ak jack di ko nuyu way da ngeen xam lepp deug la di sax yaax ay wax la inshallah allah leen li xool leen kat bi lim doon wax xalé yi yeen xalé yewu leen laal wax lim leen doon wax bala muy dem suite beauté bala muy fenal mambay nya bala muy am plainte yi lan la leen doon wax tay ci loolu la leen di wowat ci mortal combat Ousmane Sonko ya ñak jom Après avoir prouvé ses capacités de mobilisation pour la réélection du président Macky Sall à Tiwawan, Thiès est partout au Sénégal, le président André Defar, Abdoulaye Ndiaye s'engage hors des frontières. En effet, il lance la synergie pour la reconquête de la diaspora pour élire son excellence le président Macky Sall dès le premier tour en 2024. Donc rendez-vous est pris à la place des Nations Unies Genève Suisse à partir de 14h. Le 6 mai, avec tous les militants de la grande coalition Benno Bokuyakar, d'Europe, d'Asie, des États-Unis, Afrique et toute la diaspora. À ah, mbokk yi Abdoulaye mobilisation ginnaaw ba mu leen ay capacité am jëm mobilisation ginnaaw ba ñu le président Macky Sall ca Tivaouane Thiès ak partout au Sénégal président André defar Abdoulaye Ndiaye Ngalgou engagé wu na mbokk yi hors des frontières daal lancer la synergie pour la reconquête de la diaspora Madame diaspora bi nekkaat ci loxo la grande coalition Benno Bokk Yaakaar ngir mën a son excellence le président Macky Sall mën a gagné ci première tour en 2024 donc rendez-vous à John John benn fan ci Genève ci Suisse avec les militants de la grande coalition Benno Yakar, Yakar, Europe Asie les États-Unis Afrique ak diaspora bi ah mbokk yi mbir maa ngook yéen a Abdoulaye Ndiaye Ngel googook borom mobilisation yu mag ah le pari de la mobilisation Soko ko déggee sa xel war naa dem ci benn nit kan Abdoulaye Ndiaye gu ah yéen a Abdoulaye Ndiaye Ngel googook ba le 6 mai la place des Nations Unies Genève Suisse à partir de 14 heures daa ngeen xam Genève dina yëngu lool maa la wax lii déggal ndaw lu am Macky Sall lan la fi def ci réew mi nañ ma ko wax nee nañu Macky Sall dafa am bilan ban bilan la am. li nga def ci njàng mi ñëpp a ko gis sa tabax nga ay école ak ay université léegi da ngay toog sa biir kër rek di jàng université virtuelle du Sénégal tabax nga ay stade ci biir réew mi yëpp Kédougou Sédhiou Kaffrine Diamniadio tabax nga ay hôpital ci région yi yëpp indi fii couverture maladie universelle xëcc courant indi ndox fii moom lépp mi ngi dox li nga def ci agriculture ak projet PRACAS loolu moo tax léegi mbay mi changé président Macky Sall yow da ngaa liggéey. ba léegi réew mi yaa liggéey. yow yaa fi indi plan Sénégal émergent. boobu ba tey gisuñu si lu dul avancement. coalition Benno Bokk Yaakaar. ba léegi réew mi ñoo koy gagné. gagné gagné gagné. Benno dafay gagné. Eu ia fi mi dren, express regional Autopon e berte, bile pangini Bursu familial, sag moi Sen borom ñi ko moom, ñu jox leen ko Projet de développement yaa ko fi indi Pima promoville PIDC Fonds JIP ANPEJ, Fonds 6, 3FPT Programme zéro décès du Pour un accès universel à l'eau bon Sénégal bon petit ñun mon nga Nelson Mandela 2022 2023 Macky Sall président de l'Union africaine opération de transfert monétaire exceptionnel président Macky Sall yow bi nga ñëwee ci président Macky Sall yow da ngaa liggéey 2012 ba léegi réew mi yaa ngi koy plan Sénégal émergent Bobo ba tey gisuñu si lu avancement coalition Beno Bokk Yaakaar Thank you. yàlla de bu ne woon ci réew mom moom Macky Sall lay àndal yàlla mu ne woon képp Sénégal moom day taxaw jël conférence de presse ni Ousmane Sonko koy def ne yeen wa Sénégal gépp and leen ak Macky bu len maye ngeen poser ko question nak mu ne leen li tax ma len ngeen and ak Macky Sall mo fekk mouride di tabax Masaalikul jinan mu def ci 1 milliard defat assainissement ba wër jumaa def ci 8 milliards ak lampe ya ko wër nee ma benn mu ne leen bu leen yàlla ne li tax may leen ànd leen ak Macky Sall mu ne leen Macky Sall mi moo dem Tivaouane ma gàmmu ga bu ñëwee gan ñi fa ñi dalal day jafe Macky Sall daal di moderniser la ville de Tivaouane daal di jël milliard dugal ci jumaay Tivaouane ña ngi koy defaraat ndax lool mooy moom laa am ci àdduna bi mooy diine jumaay ak jàkka yi Macky Sall moo tabax seize daara moderne yàlla ne daara moderne yi kat bi Macky Sall ñëw ci réew maa ngi doo am ay daara moderne mu ne déedéet ñu ne la Macky Sall bu ñëwaatee ci ne mu ne moo dem ba Medina Baye tabax fa modernisation vitralisé jàppale leen ba dëkk ba bu ñu amatee ay jàppale leen seen i jumaa ba mu yegg yàlla ne leen tax ma ànd ak moom. yàlla bu ñëwaatoon Macky Sall lay xam nga lu mu ciy tegaata daa leen Macky Sall dem Dakar Medina Gonaas defaraat ko ba mu moderne defar fa jaamukaay yàlla fexe ba jumaay Medina Gonaas pare boo ñëwaatee mu ne ko lu tax mu ne de jumaa Omar yéen Macky Sall tax. ñu toj ko di ko tabaxaat jumaa ji bés tàq yàlla ne Macky man la àndal ñu ne lan mu ne jumaay euh, bopp mu ne lan mu ne Macky Sall ñu jël milliard lu topp def ko ci ñu yeggale jumaa ji kon Macky mën naa gëm ne euh, euh, Macky man man man man la àndal Serigne Touba mu sell mi nga xam ne lu ne defal na ko yàlla bind yàlla fu ne tagg Mouhamed fu ne ñu ne lu tax ngay ànd ak moom mu ne da koo tabaxal hôpital bu mag ci biir dëkkam ñu ne waaw mu ne nit ñi murid yi di màggale mu dóor leen autour APS ñu ne waaw ñu ne ko déedéet waaye mu ne noonu damaa moderniser la ville de lycée dafa leen assainissement 23 milliards jekk ba pare nangul di mu ne lan mu ne dafa tabax université ma jël un milliard dugal ko ca pour njàngum alxuraan ñu ne déedéet waaye mu ne damaa dinaa defar euh, tali di wër université bi dinaa ko defar ak rabouragement beeg jekkal ko ba université bi bokk ci université ak éclairage public bi loolooy tax may ànd ak moom ñu ne ñu ne ko lan mu ne maa dem géejawaay jumaa tëleen ju mag ma tabax jumaay géejawaay ba mu pare nit ñi dafa jaamu yàlla ñu ne déedéet mu ne ma dem ci ciulay càlle tabax fa jumaay 200 millions yàlla ne kon lo tax ma ànd ak moom ñu ne la mu ne Macky dem ci jumaay gulli tabax fa jumaay 300 millions ñu ne la mu ne yàlla ne Macky Sall di ñëwaat ca ci añum siwol tabax fa jumaay 500 millions yàlla li tax muy ànd ak Macky Sall bu ñëwee fi yàlla bu ne woon cëpp ci réew mi ne fi tegg tànkam xam ngeen yàlla du président de la république jeunesse Macky Sall mu ngi ànd ak ñun tujju liñ turam wax bis aduma den def àdduma den def jërëjëf def kontaan bu ñu am tey moom diine xilifa diine ay imam al ulama yi rëy na loolu monsieur le président ñu kontaan loolu loolu sa teewaay bi rawante na ànd ak ñun julli adduma euh, euh, ji loolu kay c'est la première fois président mu ànd ak ñun julli julli adduma ci Sédhiou kon li président def fii tabax jumaa ji ci ndigal suñu borom la tabaraka wa taala ci liggéey la bokk liggéey jaamu yàlla la tabax nañ fii jumaa ji am nañ fii tamit fu ñu faj kaay bi wer geram yaram mooy yëpp hôpital régional bi jógee foofu tamit pont Marsassu comme téemante wax na ko am na ku mu ko tuddal sax monsieur Bala Moussa dafe kon jërëjëf monsieur le nga yokk rek soxla nga yokkaat na yokk rek xewal moom du doy nga yokkal rek ñu ñaanal yëpp yow la yàlla jox yow la am te ñu ngi la ñaan yàlla ñu may la gudd fan ak wér ak yokkute حمل أذى الورى حمل أذى الورى كذا كذا ku bëgg a teraanga ne ku bëgg nga bëgg yàlla wala nga bëgg yàlla fokk nga nangu fokk nga bon li sotti la ko. di la ko sotti nga nangu nga nangu ko ngir yàlla. nga nangu ko te yàlla tax. parce que ci xeetu muñ la bokk. nee loolu ci xeetu muñ la bokk. te muñ. te muñ cër la ci yàlla. cër la ci yàlla. waaye nag. waaye nag. lu mën a xew. lu mën a xew. bul ubbi sa gémmiñ di tontu kenn. bul ubbi sa gémmiñ di tontu. da ngay xool kii wax. nee da ngay xool kii wax. boo ko dee tontu. looy wax looy wax. looy wax ak yow yaay kan. ak yow yaay kan. parce que tontu kat. nee tontu kat. mënul paase. mënul paase ndax xam ne maa ngi yow a yom. nga xam ne maa ngi yow a yom. boo yemee ak ñëpp nag. boo yemee ak ñëpp nag matatoo njiit. matatoo njiit. boo yemee ñëpp rek mën a mënatoo jiite nag ñëpp nag mënatoo ah, loolu. te ku topp nag nit ñi. nee te ñu entraîné. ñu entraîné ci chemin bi. yoon ñu jaar yóbbuwaale bi ñu soxla ñoom. ñu jaar bi ñu jaar. te nag. te jëmuñu fenn loolu. jëmuñu fenn jëmuñu li ma doon wax. léegi sëñ waxuñu pour kenn. nee waxuñu pour kenn. waaye kenn ku nekk. am nga sa xalaat. am nga sa xalaat. am nga sa. passion. am nga sa passion ak sa bëgg-bëgg. fa nga fa la neex. fa la neex fa nga ko jëmee. fa nga ko jëmee rek. te fii nag. ne fii nag. ñu bëri ñu libéré ngi fi. ñu bëri ñu libéré ngi fi. ñu bëri ñu fi nekk ñëpp. ñu bëri ñu fi nekk ñëpp libéré nañu. libéré nañu wax seen xalaat wax seen xalaat. wax seen xalaat wax seen xalaat. ndax koo xam ni. ne koo xam ni. ñi nga amoon ñëpp ci sa kanam. ne ñi nga amoon ñëpp seen kanam. ay ay nit yàlla lañu. ay nit yàlla lañu. waaye li ñu njëkk a jàngal. waaye li ñu la njëkk a jàngal. mooy ñoom. mooy ñoom fu ñu toll. fu ñu toll li nga xalaat wax leen. li nga xalaat nag leen ko wax. la jàngal loolu la. nee ki la jàngal loolu nag. libéré na la libéré na la. pour nga exploiter sa liberté. nee nit ki nag dafa war a exploiter liberté la. jërëjëf waaw waaw. wallaay jërëjëf. man de fu rëy laa la teg. nee président na nga yëg ni daal man xalifa. fu rëy laa la teg loolu xam nga ko itam. nee yow daal xam nga ko. xam nga ko bu baax a baax. yàlla nañu. waaw président daal nee na sëriñ bi moom daf lay ñaanal yàlla rek. wallaay. nee yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi lool. حمدا لمنسل لنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الهلال جنب فاز بالخلائق محمد طبيبنا الحكيم أركاس xam gatt nenañu sama action jam ñaajo la yem xëy na demuñu Casamance wala bu ñu dem dañu gëm seen bët yi bu ñu jël autoroute dañu gëm seen bët wala ñu préféré jël mbedd soufi xana laaj ñu wa kaw gi lan la fa PUDC indi laajuñu béykat yi lan lañ leen defal laajuñu mool yi ana mool yi lan lañu leen defal laajuñu étudiants lan lañ leen defal nañu laaj askanu Sénégal dund gi lan laa fi def depuis 2012 nen nag bu la neexee taxaw ne jant amu fi waaye bu boobaa sa bopp ngay nax sa bopp ngay nax Sénégal bii que le Sénégal puis ma fait en 2012 le Sénégal de 2024 sera encore meilleur au Sénégal de 2019 parce que programme la programme programme qui nous inspiré sur la base de mon expérience personnelle sama xam au nord au sud à l'est à l'ouest et aux programme boobu la bailleur de fonds yi adopté nangu joxe financement looloo tax étudiants yi ñoom xam nañu li ñu fi fekk du waaye interpellé na état bi également waaye ñi mu gën a interpellé tey ci ci sama gis-gis mooy ndaw ñi jeunes yi dañoo war a xam ni askan wi xaarewul lii ci ñoom jeune bu yaakaar ni toll nga foo mënee ak foo amee doole demal bay demal gori demal def lo xamne mën nga jappalé say njabot say say wajur parce que son nañ ci yow demal def lo xamne mën na jëriñ sa askan mo gën nga ay nit dila utiliser ay politiciens sous des violence politiques yo xamne ne seen i doom ña Canada ñanga États-Unis ñanga fenen wala suñu nit su dee ñibisi nañ ñu ngi ci ay grande société di liggéey di len pousse ñom ñuy dem di lolu dafa jot nit ñi xippi seen bëtt interpeller na état bi tamit. sama jur bu jigéen fu ne yóbbu na fa ba bi ma ciy fàttaliku sax ay graisse yeew lañ ko mus a wax ne ko comme yeew yàlla may ne ko gannaaw goo xam ne dafa nangu dangay ngay dem ut graisse yeew di ko diw jamono jooju. Euh, waaw comme ni ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk ñëw si kër gi 2019 la tombeel hmm. jour boobu ñu ngi tombeek jour tabaski. man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bu mu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk maa sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi bi ma ko sonelee mu tijji mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko noonu fii Sweet Beauté Spa la mu ne ma ah ma ne ko waa ma ne ko Imosène euh, boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29 sama numéro moo nekk 800 non waaw. waaw 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn chiffre moo leen tàkkale. sama benn xamee ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am.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 mi ngi ko téye si loxoom parce que farte bi man leer na ma ne farte bii kii di farata nekk farte boo xam ne nii bu kii la daal bu yomb. parce que moom lu mu fi ñëw yëpp musulaal suñu huile. comprendre nga mais jour bi mu dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est immocène ma ne ko non non fii suite beauté spa la. jour boobu la commencé jour. léegi si laa ko ne koy ñëwal mu tëdd sama jëkkër mii duma bàyyi ma fen jour boobu mu tëdd ma maasel ko ginnaawam mu dem. bi ma dugg see sax maa ngi wax sama jëkkër n ko ku ma maasee de la mais. bama ñëwé bëgga def séance dama leen ndax xam ngeen masseur ñu néma ah wax dëgg yalla fi ay masseuse mo fi nek mais nous sommes très professionnels té massage thérapeutique lañuy def may leen may leen ma dina déllu ci ñu xol bima génné dama wo sama benn oustaz mané ko ah man dé bëgg na massé wu parce que sama médecin moo digel, ko digal ci cadre ay jangoru ma yor yu ma sonal waaye nag bi ma demee ci bërëb sangam ay jigen ñoo fay massé lool lo ci xam mune ma sudé faju mo la taxaju loolu ayun ci diiné dafa melni jigen bu dem séti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la wara opérer wala ki la wara jëlal sa der wala nangam nangam jigen la koku faju la kon demal nga faju ci ci la dem deux jours plus tard def sama première séance. que jàkkaar loolu mooy néeg bi la fameuse néeg moy néeg bi nga xamné fa lañu wax ni euh, moy le lieu présumé fa la yëf yi xewee salon bi comme ni ngeen di gisee bala nga dugg ci néeg bi ben caméra de surveillance encore mu ngi pour woné ki nga xamné moy dugg mais comme ni ma leen ko waxé toujours kérok ci le 2 euh, février 2021 caméra bi branché wuñu ko woon li waral moy gannaaw coupure de courant lañu won woon débranché nañu machine yi. fàtte ko branché waat loolu moo taxoon keroog branché wu nu caméra boobu. te te keroog bi yëf di xew soxna si nga xam ne moom moom salon bi muy Ndeye Khady euh, Ndiaye moom nekkuloon ci kër gi boobu demoon na hôpital dem seeti li nga xam ne mooy doomam bu prématuré boobu euh, jëkkëram rek moom moo nekk ci kër gi. bu ko defee dañuy dugg dans la fameuse salle salle bi nga xam ne fa la ñu doon maase Ousmane Sonko mais fa lañ doon maase. comme ni ngeen ko gisee ni ñu leen ko doon waxee bu ñu génnee ci biir euh, néeg bi. li nga xamne moy buntu bi buñ ko delo comme gis ngeen ko buntu bi du teju donc euh xawma par ban extraordinaire la lañu mëna mën dugg ci neeg bi euh, tej ko ba mëna fa mëna def lool nga xamne mom lañuy tuddu mais comme ni ma ko kër gi dafa am ben xalé bu ndaw xalé bo xamne ñetti at la te fu ne lay daw donc buntu bi warona ñu war fi mëna def dara xalé bobu war na mëna daw à tout instant buñ ko xalaté war na mëna jihi jiixi jaaxa xel yi mais benen encore événement bu bu doy war comme ni ma leen ko woné digënté fi ma taxaw ak buntu entrée principalu kër gi matul 5 mètres bolé ci matul 2 mètres pour ñu entrée wu salon conférence de presse bu ma taxaw Jeune Afrique nek fa wala monde diplomatique wala nu tuddu RFI soit ñom dinañu genn wala man duma fa bok parce que man tubab ëpp ful la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 Voisin européen, La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de, l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, euh, pays européens. Elle doit avoir la dignité de, de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Ousmane euh, Sonko, c'est le président du PASTEF euh, Sénégal et avec moi pour cette interview Christophe ah, Boisbouvier de RFI. Ousmane Sonko, bonjour. Bonjour monsieur Boisbouvier. Eh, bonjour monsieur Ousmane Sonko, bonjour.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

dafa am ñu war a dem ku nek na maase ben côté ci gannaaw bi ma dem sama yoon ñu défé ko non ma dem sama yoon. mosuma faa def massage bo xamné ne exigé wu ma sax que ñaari massage nek ci. bi ma ko joxee man ko ana Sonko. dëgg dëgg foofu ngi leeral parce que sénégalais yu bari ñu né massage kese lu ci 50000 mille uti. Hmm. quatre la def massage quatre hmm. mille la. fini bo xolé office bi bii. quatre mille la cinquante la. d' bu fekkee da nga def massage ben personne. 20000 hmm. francs la une heure de temps.

ki moma ak galgal ak nangam nangam. bu ci bir euh bu mu ci bir cabine bi. hmm amna ko wo téléphone hmm né ko ndax daanu na mun na ko waaw mun ko gaawal ñu teg ci si oto bi ñu yóbbu hôpital pour jël ndox bi ñu yobbu ko. est-ce que goudi gogo encore nga def prélèvement bobu ñuy wax. ci goudi gogo def la benn prélèvement. def na prélèvement déposer ko laboratoire. mais foofu rek laa mën ci goudi gi ci goudi gi ci goudi gi waaw da nga def benn prélèvement benn frottis nga denc ko ci labo écouvillonnage précisément ah, écouvillonnage yóbbu ko laboratoire xaar euh, résultat une question toute simple toutefois pourquoi est-ce que dans cette procédure vous avez refusé un prélèvement euh, d'ADN parce qu'après tout ça aurait pu clarifier les choses une fois pour toutes. Quand l'ADN sert les innocents, aux États-Unis, un homme de 47 ans vient d'être remis en liberté après avoir passé 27 ans en prison. Euh, selon ses avocats, Charles Chatman a donc été innocenté suite à des analyses génétiques. Ah hein. Durant les 27 années qu'il a passé derrière les barreaux, à trois reprises, on lui a proposé de reconnaître son crime contre une libération anticipée, mais Charles Chapman préférait rester entre quatre murs plutôt que de salir son honneur et celui de sa famille. Aujourd'hui, il doit sa liberté aux tests ADN qui ont fini par l'innocenter au terme d'un combat judiciaire qui, dès le début, a pris des accents de combat racial. J'étais condamné car un homme noir a violé une femme blanche. Alors, c'était moi le coupable. benn question la ma juge bi laaj mooy est-ce que di nangu joxe sa deret pour ñu def test am ñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne ah conclusion yi mooy lii. may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de. li gën a am solo mooy tey Sénégal yëpp dañu war a taxaw exiger procès bi am parce que xam nga ndax lan lu tax fee yi ñëpp ko confirmé. islam. ak lu tax mu dem fa nga laaj eh, ndax dafa ne dafa feebar eh, mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie charia lum ci wax mooy eh, dafa xaraam ci bépp fànn ndax ku ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési Euh, sen publicité yi nga xamné ñu bëré man ci talibé yi ak euh, parce que ñun ay nitu diiné lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu tepp rek wax euh, lu ñuy publicité sen salon moy ñëwal suméku ba set ñu toppatoo la ba ba nga am mbégte wax yu ñaaw yoyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diiné dëkku sharia dañ la wara ci bëss bobu tej la kasso duma la juroom ñaar fukki yar yu metti yar la yar yu metti lolu moy attewe ci sharia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu metti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dégg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba su ñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu lislaam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imaam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam bu mus a ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratul sukkandiku dudut ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñaar ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juum juumte gu rëy googu. ànd ak sérénité te xam ne togg bi ñor na yekk ko moo ci des bu leen ko kenn yàqal bu leen kër divertir ak ay procès réew mi Babacar. ñaari mbir a Sonko day bokk gañu réew mi bokkul réew mi tàkk. Oustaz loolu garaaw na de bàyyi bàyyi di wax Oustaz bàyyi di wax tàkk garaawul Babacar Babacar tamit ñun ñun tamit Babacar tamit nag Babacar nga tooñ ñu ba pare nga def lu la neex di tëdd di naaw Babacar dafa am loo xam ne du man nee naa la yàlla moo ko programmé est-ce xam nga lu waaye yàlla doxe suuf wala ñun dañ jàpp ne ñoom yàlla moo moom suuf si da gis nga teg nga injustice mu dóor injustice sa kaw Babacar loolu du man maa ko bëgg c'est naturel. c'est naturel waaw yàlla bu naturel la maanaam tooñ bu yoo bu àggee njoloxtaanam rek c'est fini day wàdd te nguur gi foofu la jëm mooy tooñ ñu ñëpp peuple bi tas suñu yaakaar ñu ñëpp peuple bi ñu toog di nelaw mhm. Babacar mënuñoo nelaw yàlla yàlla def jàmm ci réew mi mais jàmm jooju ñoom ñoo koy suuxat yàlla yàlla defal ñu sutura defal leen ko mhm. suñu bëggee réew mi am jàmm ñu bàyyi Sonko mu dem élection jàmm mhm. ñu wateel ko jàmm bu yoree réew mi yor ko bu ñu yore suñu delloo ñu ko ñu ngi leen jaajëfal di leen gërëm di leen sant yàlla yàlla dimbali ñu dimbali. maa ngi gu yaram gu mat sëkk kanseeruma ah ci ci lu ma yëgul <laughs> jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii. ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop famille Ousmane Sonko toutes réunies ñoom ñu ngi nii di dund mbégte bi ak doomam yi ngeen di seen euh, ci vitre euh, vi bet euh, ba vitre yi plutôt ñoom tamit ñu ngi kontaan loolu on ku dee sa way jur juraat ku dee sa way jur juraat ku dee sa yaay juraat loolu du ay wax mais lan mooy ku dee sa yaay juraat mais Sonko warul a loolu sax loolu pour ñun ñun yi la ñun mbëri ñoo koy def ay slogan di ci di ci ut ay supporters mais moom yow nga bëgg a jiite Sénégal suba ngay taxaw naan ku dee sa yaay juraat non mais. waxul dëgg il a été épinglé par le rapport de l'IGE mun naa leen liiral pas passage yu bëri xam nga ñoom li ñu xamul ñun document yëpp la ñu am téye ko. dem na déposer benn dossier nee na diffamation may wax fii ñëpp dégg ko diffamation amul diffamation amul. ndax dama lire benn document boo xam ne rapport IGE bu nekk ci internet la rapport bi ne épinglé nañ ko moom Mame Mbaye Niang jiñ nekk ci télé yi nekk ci rajo yi nekk ci live yi ne am naa ay preuve am naa lii am naa laa ba ñu nela la bés ñëw na woo nañ na nga toog mu toog ñu ne dañ lay laaj nga ne du ma tontu. loo xam ni nee nga am nga ko loo xam ni nee nga ay yëfi ñàkk fayda la loo xam ni yow. koo wéetal yónnee baaluma amatul baal parce que munooy saaga ci kaw di yónnee ci suuf di négocier naan ay noo mën naa bind ak bu bindee bëgguma lu mu def bëgguma lu tax wootewul tey manifestation parce que jàpp na ni ko gàdd na éligibilité léegi ñi ko toppoon di ko défendre ci loolu ñooñu yaakaar ni que li mu perte moo ëpp éligibilité li mu perte mënatu ko jënd fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi-temps moo tax ma ni jeexagul beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis xaalis ñu yàlla dañoo teral te duñu dellu ginnaaw li wax li que xaalis biñ ciy wax mais defe naa dinañ jël disposition yépp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir gërëm xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko ba neuf milliards laaj dem dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot benn dërëm du dugg ci ku ma ku yàlla wax ni que dama ko war dimbali benn dërëm du ci dugg xaalis bi lépp lu ci ñëw dañ ko xaaj ñaari pàcc lii ca ndongo daara ya lii ci victime yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko créé ñi ci ñàkk seen bakkan ñi ci seen bakkan ñi ci gaañu ak ñi ci lor donc lépp luñ ko mën a yokk rek nañ def la ca war tribunal yokk ko ñu joxe soxlawul ci ñaar dërëm moom la ngoram di jar ay daw ñun suñu ngor amul njëg parce que jàpp nañ ni ku ko jaay sax doo ko amaat moom la dignité moom moom lañ mën a jënd ci ay nëbbatu ñun jàpp nañ ni dee moo dee léegi ak sa ngor moo gën dund ci ñàkk ko mbir mi dama ciy sant yàlla parce que ñu bari dañ cee dugg dama ciy sant parce que ñu bari dañ ciy xame bari na ci ñoo xam ni amoon nañ cofeel ci moom wala foogoon nañ ni que lu muy wax am na bi ñu yëgee li xew ci jëf bi xeeb nañ ko donc man xeebuma liñ ci am am na ñu foogoon ne que lépp lu mu wax téye na ko yor na ko ba ñu yëgee am firnde ni que lii la def ak huissier yi ñooñ dañoo génn ci moom man de preuve laa laajoon ba tey ci waxtu wi Ousmane Sonko indiwul benn firnde buy wax ni que moom document yooyu mu téye woon lu am la ba tey jii nii génnewul rapport mais dafay wane leneen ci mbir mi sama grand frère Khalifa Sall ma nga doon def mottal yéene kenn gisul benn kaaru gendarmerie bu ko topp Malick Gakou ngi def ay tournéem kenn gisul benn pick-up gendarmerie bu ko topp tournée économique waaye lan moo waral Ousmane Sonko moom saa su jógee rek yenu armée nationale yépp ne topp leen Ousmane Sonko. duñ la bàyyi yow kese ngay dem parce que village yi ngay dem dafa am ay xar yi jigéen yu fa nekk am ay mbaam yi jigéen am ay nag tamit am na ay xale yu ndaw yu fa nekk comme que yow mu gëm jëmm boo xam te ni mënoo téye sa tuway duñ la bàyyi yow doo ngay ngay dem xanaa ñun dañoo dox dañ lay sécurité bu baax balaa ngay yàq doomu jàmbur yi xanaa da dox waaye man mi nekkoon ci biir butu lañ ma sotti ma noyyi ak fi ma noy di daw ci di daw ci No, no, no, no,

man Barthélémy Diaz nee naa man tubaab la namp lire nga légui article 27 peut faire un mandat de cinq ans nul n'a le droit yow da nga jàpp ne Macky Sall amna droit def troisième mandat xam nga porox ndoolu bu ko mun may mu def troisième mandat c'est ça la vérité lu la mën wax may mun a mooy suñu troisième mandat man Barthélémy Diaz du marche Do bouger du bouger té du tal taal té ma ñëw nak képp ku génn ci mbedd bi da la constitution du Sénégal Voilà, y'a un ci wax ci te man yebuma constitution du Sénégal moo tax ci jëlbeen bu commencé euh, émission bi man la la xalaatu Barthélémy à amul solo ku ma bëgg ak ku ma bañ laa yemale seen ginaar nenu constitution du Sénégal laay gestu parce que nous, de ci république bëgg jiital sa xalaatu bopp tey soo nekkee jullit amoo droit di jiital sa xalaatu bopp alxuraan ngay tech soo nekkee catholique sa xalaatu bopp nga dóor ko sa armoire bible ngay tek ñun suñu alcorane ak suñu bible ak suñu euh, tora moy constitution du Sénégal. donc te constitution du Sénégal. ma paraphraser li nga wax. constitution du Sénégal yow Barthélémy Dias do marche do do do tal rew parce que da ngay conformer ci constitution bi. et que constitution bobu nga xamné ne voté nañu ko par référendum 2016 may na droit Macky Sall possibilité mu mu mu représenter représenté wu pour un troisième mandat du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toïdjaï. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy Yangi Dokhalde. <laughs> Mais c'est bien. Vraiment, bravo. Et comme, comme disait l'autre, comme disait l'autre, je dirais à ton papa Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Merci donc au réseau, merci au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale. mu woo doomu jàmbur yi ci mbedd yi ne leen ayta ñu dee ñëw ñëw leen yéen ngeen dee bu amee lu mu bëgg nag parce que nag moom après kenn du ko dégg mais loolu c'est pas acceptable c'est scandaleux li tubaab naan scandaleux loolu kenn mënu ko nangu ndax Sénégal dëkku jàmm la démocratie dafa yomb ay sart la tegu bu élection jotee ñu wote waaye moom ni mu ko gisee mooy woo nit ñi walla génn leen doon ñeenti téeméer xaw ma ñaari téeméer yu junne yi dañuy dox jëm fii jëm fale maanaam bëgg indi tasaaru réew mi nag moom war naa xam ne mënu koo taal tey mënu koo taal guddi mënu koo taal ba bëccëg Sénégal moo mag Ousmane Sonko Sénégal Ousmane Sonko dana politique ba jeexal bàyyi ko fi loolu moom aussi dafa dañu bëgg mu leer naa ci boppam moom it ñu comprendre loolu ndax ñoom lay woo toujours

suñu tata mimi borom xam-xam ju beuri ji ak tegal gu rafet ji gisuma lu ko on accélère on accélère ak mimi ngi ñëw ak dara mënu ko sauvé bye, bàyyi ba benen sénégal mo mak ousmane sonko sénégal ousmane sonko dana politique ba jéxal bayiko fi lolu mom aussi dafa dañu bëgg mu lèr nañ ci bopam li moy nguru makissal waye fi muy mujjé naruta bax te li muy wax nak mu xamné titalul kenn koku mom loolu momit bu ko xamone dana ci noppalu amul kenn ku mu meuna tital wala ku mu meuna xoxatal amul tuuti na pour yak Sénégal torop tuuti na ci yak Sénégal Sénégal sax kenn dako ko la yak ndax limay wax toujours ndaw ñi lépp mi ngi dépendre ci sen détermination waye mom bu fekké ne amna lu mu soxla rek mu ne jeunesse bi bàyyi leen seen atelier bàyyi len seen wala sen jang njàng len sen salon de coiffure fekk len ma ci bedd bi djogu Sénégalais 65 des jeunes de la population bi Sénégalais xajul ci Macky xajul ci Moussa xajul ci jeune euh, jeunesse bi ñuy wo ci mbedd mi nañu xamné ne li leen soxal moy ñu mëna jang moy ñu mëna moy ñu mëna am formation moy ñu mëna am liggéey. wo jeunesse bi aussi ñu mëna baña aussi manipulation bi ndax nak aussi des nañ ne xeyna yeen xel dafa woyof. justice au Sénégal.

institution yi ñun ñoko mom ñoko bok ñu ngi fi depuis 1960 li ñu wara jox comme exemple suñu jeunesse bi moy ñu respecter nos institutions ñu respecter la justice. justice bobu nak yeen gis ngeen Macky Sall lim ci nekké fi ne wu ne wala ñaari nek mu def consultation à domicile changer ay juge parce que day tànn ay nit am lu mu bëgg ci ñom dem ba ci biir amuko mu gaawantu soppi leen. Nous respectons la première institution du pays le président de la république pour des raisons politiques et politiciennes Nous avons yu ñaaw vraiment ces institutions là. man lima que Sénégal Sénégal man Sénégal Sénégal surtout Sénégal environnement bi mu 21

Benno Bokoyakar qui tient le carnet de rendez-vous de Suite Beauty Salon. Ce n'est pas nous qui donnons les rendez-vous. gis ngeen it euh, ni ñuy ci dossier Nous, ñu premier dossier nous avons un rôle pour le 16. D'accord avec le jugement et je le dis. bëgg bëre bañ bëre